sama ndey tamit tamit eh. ay seral wi sama ndey bi yàqul ay seral affaire jaar jaar nga jeex la affaire dëgg-dëggal nga laa la bëgg a wax waaye Sénégal léegi affaire jaaxar jaaxar gi moo fi buujoo internet ne Sénégal yàlla la waxante ne ay yow Sénégal benn xale bu jigéen daal barki Rasulullah amul lenn lu muy def ngir def jëf ju ñaaw joo xamante ni yàq na deru jigéenu Sénégal yëpp ay yow Sénégal xale bu jigéen bi daal amul lenn lu muy def jël xale bu góor boo xamante xale bu jigéen bi daal di koy incarné daal di koy nopp laa la waxante ni di ko envoyé ay foto yoo xamante ni maara day ems photo yu garaaw a garaaw a garaaw a garaaw xam nga ne yenn photo yi boo ko envoyé papa bi day dee day dee moo tax paa bi daal dim ci sa xale bu jigéen lu nekk la koy envoyé xoolal photo yi mu koy envoyé ngaa yeegu leen aywa ngaayeeku leen ngaayeeku leen xol bi ngaayeeku leen ngaayeeku leen boo ko abayee paa mu dee ngaayeeku leen surtout xale boo xamante ne ay aasi daa baax mu ne ngaayeeku leen day dee ñu ne déeta waay bi ma gën a rey nag bi ma gën a rey mooy bii juutu leen woo juutu leen ay waay juutu leen bii la ko abaay juutu bi ma envoyé juutulee paa bi tuuti mu dee tuuti paa bi parce que dafa toog ba si yàgg rek commencé xam laa la wax yaram bi di rocceeku nàkk-nàkk mais bi nga xamante ni moo gën a garaaw a garaaw a garaaw bi nga xamante ni ni soxna paa bi seen a daj du benn budul ay waay ay waay tëdd leen nee nañ ngelañ ay waay xale bu jigéen bi nee nañ nee bi nee naa ngelañ léegi boo ko defee paa dee ay waay boo ko bu dee man sax bu ma ko defoon damay dee laa wax damay dee wet maa la wax maa euh, leen seen affaire caaxaan caaxaan ngeen dem <laughs> affaire caaxaan caaxaan kon bàyyi leen ko yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk si Facebook bi di def ay jëf ju bon di envoyé ay photo xam ngeen ne lu mu yàgg-yàgg dañ leen jàpp te xam nga ne ëllëg da ngay juri doom bàyyi leen seen affaire caaxaan caaxaan yi te ngeen def affaire dëggal dëggal gi kon nag lii mooy seen revue de presse dagg naa yokk cere daal di dooli ñeex bàyyi leen nag ba beneen yoon ak beneen tableau bu bees xanaa xam nga gàll nga yun nga ay waay ba beneen yoon